jaajëf jaajëf la famille kontaan naa lool ci gis ne fi mu nekk nii daanaka euh, taxaw nañ ngir euh, waxtaanee li nga xam ne moom la di masaw askanu Sénégal di leen masaw lool ndax jafe-jafe yu ñuy dund jamono yi ci wàllum ñàkkum ndox jéggi na dayo jafe-jafe yu ñuy dund jamono yi ci wàllum ñàkkum ndox jéggi na dayo ba tax ne ñu demee ba réew mi fi mu toll nii ak la ñuy waxoon lépp ci Suez laay tàmbalee tey parce que dafa métti parce que dañ ne nañu aar suñu bopp ci lu jëm ci coronavirus mën a dëgg la waaye coronavirus ñu ne lan lañ koy aaree ñu ne set da raxas sa loxo saa su ne ak saabu parce que du ku nekk moo am njëgu gel du ku nekk ka kon suñu demee ba réew mi taga témbe nekk si ci ngiñ cangañ ci wàllu ndox nekk jéggi da say yaram day daw boo gisee mbooloo mi ñu ñuy dawee ci gaaw ginnaaw citerne yi ay xeexoo geste barrière yi fàtte nañ ko pourtant nag lii ni ñu fàtte geste barrière yi lu simple la lii ñàkkum ndox ci lañ toll ñàkkum ndox déggoo ministre bu yëkkati kàddu wax ci te jaay nañu siège wax fii lu ne ñu wax ñun waxoon nañ ci Suez wax leen ci lu baree bari ci chronique kon loolu laa di massawu coono ñi nga xam ne jamono yi dañoo ñàkkum ndox di wax nag dañuy tàmbale tamit suñu live ginnaaw bañ leen nuyoo yéen ñëpp nuyu bu gën a sell jox leen seen way ak seen way ñuy wax ne nañu ànd ñun ñëpp ci yiw parce que ci loolu la ñuy rawante ci yiw loo bari bari immeuble ñi tabax ci littoral bi yépp duñ ko dajj ñu suulaale leen ko lañ fa def yépp duñ ko dajj bu leen denc juróom ñaari mètre per calbe loolu dong leen leen yóbbu

parce que moy dugg ci telegram bi di wax yu motax yu bari dama koy sumay live di len pas, bu baakha di lancer un message aussi au président de la république ci Karim l'activiste pour nous ko mu ñaan Sénégal ci walu yoon ne képp koo xam ne dañ ko jàpp te état de santé mayu ko mu toog ci biir kaso ñu yóbbu ko pavillon spécial bu nekk ci hôpital la dante boo duggee hôpital dante ba di ko nga jadda gauche pavillon spécial am na foofu kon dañ ko koy ñaan ci ñaan bu gën a parce que xam nga lu tax lu baree bare dina xew ci réew mi ci boppam lay këpp kon ñu koy ñaan ci ñaan wu gën a sell ne ko kenn umpalewul na Karim wér yaramam demewul noonu ndax dégg ngeen fii mbiru Karim ba mu tawatee ñu dem ci ba soxnaam si di soxna Maram fay Sall bëggoon ko jël en charge Karim bëggul ñu fas ñu yóbbu ko woon Allemagne mu faju fa ñeenti weer dellu kon ñu yëkkatiwaat sunu kàddu di ko bërelaat ca kaw pour lan moom bu nekkee ne mënuñu bàyyi Karim ci si fii mënuñu ko bàyyi mu ñibbi ci njabootam ndax jugé nañ ko ba noppi lu ñu mënal Bougazelli ndax Bougazelli mënoon nañ ko bàyyi mu dem pavillon spécial feulé té dañ ko nangul feebaram dañ ko nangul feebaram pour raison médicale parce que il n'a même pas été entendu dans le fond du dossier ñu jox ko liberté provisoire pour raison médicale xel mënees ko nangu peut-être ndax bala nga né nam ne balaa ngaa mën a téye Bougazelli moom wér gu ñu koy ñaanal moom wér-gu-yaramam bu baax ñuy ñaan timit Karim bu nekkee ne xolu bàyyi ko mu ñibbi ci njabootam yoruñu ko ah nañ ko yóbbu pavillon spécial mu toog foofu ndax am na fi loolu bëggoon naa ko wax Assane Diouf dañ koy wax bokku ñu ay melin waaye nag dañuy wax ne réew mi lépp nañ ko teg ci loo xam ne parce que avocat moo wax man waxuma de avocat moo ne Assane Diouf jéggalu na loolu yëpp xam ne lim def moom jéggalu na ko dem leen ngeen seetaan vidéo maître Clédor Ciré Ly moo koy nuyu au passage xam ko bu baax moom combat yu bari yoo xam teew naa mu plaide ko ba ma nekkee Sud FM di dem sur le terrain régulièrement di suivre ay procès maître Clédor Ciré mu nekk jàmbaar un grand procédurier mbiru Cheikh Yérim Seck tamit dinaa ci yëkkati kàddu ndaxte Synpics jox na ko parce que xam nga nit tolluwaay la ak dimension man Pape Alé du topp kenn ci loo xam ne ñaaw teef la wala bon déedéet li ma nar a wax nii sax am na ñoo xam ne du leen neex parce que lu bare xam nañ ko dem naa démb conk mu nekkee garde bi vue nemmeeku waxtaan ak moom amal lu ma wax du lu neub moy communiquer bi ci génné dem na ko ko parce que man dama japp ne nit ay principe ak ngor lay doxé ak nu mënta démé parce que lu bari xam nañ ko ci digënté Cheikh Oumar An man ak yoyu bari bari mais yoyu amul solo xam ngeen ko xam naa amul solo li am solo mooy nit tolluwaay la moo tax ñu demoon nemmeeku di ko di massawu njabootam di wax ne lii yàlla ci génn ak jàmm parce que lu bare bare xew fi ñu yëkkati seen kàddu ñu wax di massawu njabootam waa Dakaractu donte ku xool j'ai été victime de leur lynchage en continu mais amul solo leçon de vie ngay jàng amul solo gis ngeen fi coowul accident yi amee lu ne wax nañ ma ko mais amul solo parce que wàññiwuma dara leur lynchage médiatique mais dañ leen di massawu leen taxawu ci lii xam nga nag di leen bu baax a baax dañ wax ne dañ gën a di massawu yërim post ñoo bokk liggéey bi li lan ci il nous faut une solidarité dans toutes les corporations solidarité pour solidarité pour nga défendre l'indéfendable wante bul inventer nit ki timit lu mu def nit tolluwaay la y a ko wax ñun duñ dégg fu may waxee nit tolluwaay la retenir les leçons de vie retenir les leçons de vie parce que man teg nañ ma kaso hospitalisé nañ ma fi lu ne l'instant mi après ba ma ci génne ñu bëri dañoo xam ne leen du ma tontu kenn lépp lu ci am rek lépp lu ci am rek dina leer kon ñuy masawu Dakar Actu di masawu Yerim Post di leen wax nag xeex bi yéen moomu leen ko wala wax ji moomu leen ko ñun ñëpp ñoo ci ànd ci loolu. lay wax ne tey ñu dellu siwaat ci Casa del Fares yéena ko tuddee noonu Casa del Fares yéena tuddee noonu xam nga lu tax may ma def benn parenthèse baa ma dem foofu lu tax may wax ne loolu yëpp tolluwaay la parce que man su paree sama pare naa ci damay ñaan yàlla siq jàmm ak ñëpp képp ko xam ne ñoo bokk métier ak képp koo xam ne ñoo bokk nañu yàlla nañu yàlla may ñu nekk ci jàmm di yeneen yéenante jàmm rek na parce que après wërsëgu nit kenn mënu koo jël yàlla bind na ko bu yàgg nit ngi nee di dem coon sekk ko waxoon yàllaa koy def ci nit dëgg rek kay mujj te fen du bejjaaw dafa am loo xam ne dafa am solo parce que tey dama jot benn information gars bu doy waar balaa ñu ñëw ci Casa farais dafa am njaboot goo xam ne wala kenn ku bokk njaboot googu ku ne ma gis nga lii nga xam ne Rachel mi ngi koy dund jamono yi ñun dund ñu woon loolu waaye suñu mag ñu ngi tudd Amadou Makhtar Bey doon liggéey batimat batimat beneen kuréel la moo bati mat moo jur bati plus bu faree si moom nee na seen mag jooju da doon liggéey foofu responsable commercial la fa woon ba mu fa nekkee responsable commercial en 2005 ñu jiñ ko daanaka mat extuellement daanaka lu ñu jiiñoon Rachel ne ko dafa def malversation luubal xaalis nee na ñu jàpp ko yóbbu ko. ñu xëy si ñoom seen njaboot ñu ñëw ñu ne dafa xaru njabootam na ñu ne njabootam dafa xaru dafa pendre boppam frère am mi ngi Suède balaa ma ñuul si Casa del Fares épisode deux ñu ma jéem a xool ndax dinaa ko am pour xool ndax dinaa ko am ngeen may ma rek ma xool ko rakkam ngi tudd Jibi Bey alo Jibi na def alo Jibi waaw alors Jibi dama bëgg nga tënkal ñu sa sa histoire euh, frère bi nga tënkal ñu ko lan la dem je waaw ayca ma Jibi waaw léegi yaa may dégg Jibi ma ne yaa ngi may dégg léegi dama bëgg nga tënkal ñu sa histoire frère bi nga wax ne bati mat la dañ liggéeyee te dafa ñàkk bakkam te affaire am xawoon na roog ndaw si nga tënkal ñu ko rek waaw ñu ngi lay dégg. bon man euh, mon frère il s'appelait il s'appelait Amadou Matar Bey bon ah. moom il était commercial à bâtiment mm-hmm. depuis des années il a travaillé là-bas comme commercial et tout bon il avait l'habitude quand même de recevoir de l'argent avoir de l'argent liquide et tout mais comme commercial bon da ngay ñëw verser après ñu ñëw récépissé ñoom ñoo defoon seen euh, formalité yooyu bon mille mais il a il a plus de mhm. moi j'avais constaté ça au temps bon on l'a accusé de détournement bizarrement parce que man tamit sama frère ma xam naa ko bu baax c'était un gars vraiment sérieux am njabootam am jabaram précisément marié et tout mais xëy bis waa bâtiment yooyu accusé ko de détournement xaw ma ndax yaa ngi may dégg. Mhm. Mwen li dekou? Mwen li dekou? Waw. Yo boko brigade rechef. Biko yo boko brigade rechef, mwen tok fe, te, troa joun, nyoun nou wonyoun, mwen ap ave nyoutem, nyoun eton frèr, euh, votre, votre, vaten, votre frèr, mwen frèr, yi, yi, yi, yi se pandu. Ou gaw, mwen desede. Bon, mwen, ta nou ap pa, convaincu l'affaire d'autopsie a été euh, autopsie en deux trois jours de détention comme ça dans les locaux même l'on Amnesty International en mars 2005 hmm. donc

Mhm. xam nga comprendre nga li ma bëgg a wax. bu baax maa ngi lay dégg. parce que moom tamit dafa xëy gis rek ah. maa ngi lay dégg. waaw. Mhm. dafa waaw waaw man bi ma déggee kara bi nii aussi bon ça m'a fait penser à mon frère. parce que aussi y a le temps que moom c'est dans les mêmes conditions noonu lañ ko appliqué woon. que ne waa dafa jël liquide et tout et tout donc liquidité quoi liquidité bi toujours y a la liquidité qui est là-bas bon. Mon nom lañ ci toll ñàkk nañ ko ba léegi mënuñu xam les conditions de sa mort mais li ñu xam rek mooy que dee dans les locaux de la brigade de recherche fa nañ ci yem un point c'est tout loolu nañ ci am. très bien. donc. waaw. waaw wow. waaw baax na le Sénégal des aussi ñu xool Libanais yi moi je rien les Libanais et tout ils sont il y a des Libanais qui sont plus sénégalais que moi. mais aussi li ñuy def ci dëkk bi ñoom ñëpp war nañ ko xoolaat xoolal sama frère boobu ñu ngi nii amoon na jabar commencé une fille une belle fille et tout commercial à Batimas un jour comme ça ñu accusé ko de détournement yóbbu ko brigade de dee na ñun loolu lañ ci am amuñu ci leneen ñu noonu. Mm-hmm. donc ça m'a fait voilà quoi ma liiree affaire yi duuru ça m'a fait rappeler ça ah, bon frère, et puis voilà, mais pourquoi pas me faire une intervention, Merci, Lola. merci beaucoup, Djibi. n'a trop, say y cadeau. Merci beaucoup. Ah, donne problème, papa. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Merci. Ciao. xam nga moom laa la wax mooy suñu liggéey ma interpellé ma ne na ko waxal boppam moom noonu lañ ci toll ñëw accusé nañ frère am Amadou Makhtar Bey amna sax ñuy ci chat bi ñuy wax na xam nañ ko ne jabaram souffrir na ci loolu torop ñew indi ko deux jours ñu na la dafa pendre bopam tay xam nga ma ngi leen dañ wax ne xam nga dama bëgg sukkandiku samay kaddu yépp ci ay këyit lire leen fii ci kaw da ngeen gis sommation interpellative sommation interpellative interpellatif, ngeen lire day naq lire ko mais dama ko Casa del Fares épisode 2 commencé à gaay sommation interpellative bi xam moo nekk lan moo nekk li waral ñu jàpp Rachel xam nga wax Rachel bu Rachel jëlee xaalisu Batiprus battu porté ko plainte man nañ ci toog mais su ma parce que damay lire ba deux heures du matin trois heures du matin tellement de documents sur lolu damay na non il faut qu'on commence par là où tout a commencé pour que les gars pour que les gars puissent mieux comprendre ce qui s'est réellement passé lu tax ñu ciy tudd lu baree baree bare bon plainte bâti plus lu xew dañ suite à un audit interne des comptes financiers suivi par le commissaire des comptes il y a eu des écarts importants nous ñom des def audit interne un compte ñu gis ay écarts importants. important nous avons boo xam ne xamul fan la jaar ci audit bi moko woné ñom ñoko ok d'accord bañu waxé lolu le ñu né ci période du 27 janvier 2020 ba 25 février 2020 le toll ci 126 millions réer na mër ci caisse. Nous ñu rachat caisse, ñu enquêté li ñuy wax caisse du des fofu ñetti nit amon nañ caabi ji ñetti nit amoon nañ caabi dañ doon dugal parce que Rachel da doon wàcc 17 heures am ñeneen ñoo xam ne bu xaalis ñëwee ñu dugal ko ñoom ñoo wax de waa Bati Plus ñoo ne dañoo gis disparition de cent vingt six millions loolu moo nekk seen somation interpellative bii ma yor bon ñu continue ci sommation interpellative bi ñu ne bu ko joxee Rachat ne ko nan nga ñuy joxe suñu delloo ñu suñu 126 millions yi nga xam dañoo japp ne yow da ka kaa ñan ñoo xam li nga def kan mo la xelal lo lépp ci sommation interpellative bi de qui vous a demandé au conseiller d'agir ainsi mi ngi nii laaj yaa ngi nii mais comme yéen a ngi nii laaj yaa ngi nii voilà qui a disposé qui dispose ou disposé de ces sommes maanaam xaalis bi kan nga ko jox ñoom ñu ne Rachel tontu leen na leen dina toog dina dina rembourser lañ elle va voir comment rembourser Charles bi bi ko don jox André Slaty moy papam ak ben chorom Alex Rabi Kafre d'ailleurs sax koku demb mom lañu inculper inculpé placé ko sous contrôle judiciaire mais André Slaty ak yaayu Rachel ñom ñaar ñooñu dégloogul leen ndax lu tax maamu Rachel bu góor juddoo Mbàkke màggee Mbàkke yaroo Mbàkke moo génn àdduna leer na moo génn àdduna ñu dem dëj ko semaine bee passé ci la ñu nekk moo tax doyen des juges ba léegi dégluwul papay Rachel ak yaayu Rachel sax dugal nañ ko ci dossier bi mais Farou Rachel de Alex Rabi Kafri Mom entendre nañ inculqué inculpé ko euh, sous contrôle judiciaire mais lu doy wa nous de am de ngeen di film mais ci Rachel ba xamé né ne affaire yi fim nek ni nii bu métti ta xamul nan lay mujjé mu wëlbatiku moom it porte plainte c'est là où c'est intéressant plainte Rachel ba ngi dama bëgg ngeen ni lire mi ngi ni à ah, monsieur le commandant de la section recherche de la gendarmerie nationale Colobane objet plainte pour caution de partie civile contre monsieur Christian Samra ma ñëw ci léegi nag ñu porté moom Rachel wëlbatiku porté plainte porté plainte kii nga xam ne moo di Christian Samra Christian Samra mooy DG bu Batiplus plus yi may leen ma une minute rek ma jël matuwaay yépp ngir mu leer ma dellu siwaat ñu dawal suñu film film day am pause gis nga moom mu wëlbatiku porte plainte avec caution de partie civile kii nga xam ne moo di Christian Samra Christian Samra mooy DG bu Bati Plus ak xam nga kan ak maître Richard MS Diatta huissier de justice. Là. Coco, huissier de justice Quand vous nga porte plainte suivre le ndànk Mon Rachel ci plainte am 6 mars 2020 Christian Samra a ko forcé pour nous signer ben plainte pour extorsion de signature tentative d'atteinte à l'administration de la justice double de faux intellectuels et dénonciation calomnieuse lieu yep la topé Christian Sava. donc on a forcer pour nous signer que bi ci plainte dañ ko copté mars 2018 qui bir plus sans contrat de travail. sans contrat de travail par le directeur dañ ko joxoon rek benn kees boo xam ne xaalis moo fay dugg ak a génn loolu rek lañ ko joxoon 2018 Rachel moo wax loolu ci plainte bi nga xam ne moom la déposé mu wëlbatiku ne le 6 mars 2020 directeur bi dafa ñëw rek jàkkaarloo moom na ko coffre biñ la joxoon moom am xaalis am na gàpp boo xam ne mi ngi toll ci cent vingt six millions maanaam gis nañ cent vingt six yu réer mër moom Rachel mu ne loolu Christian Samra ba mu koy jiiñ loolu di ko wax ne ko cent vingt six millions dafa réer te ko doon saraxtu parce que dafa amoon lum bëggoon a nëbb moo ko wax ci plainte am de ma liir xam nga gars yi fii moom man nee naa leen ma liir ku ma jox que pour étouffer soi-disant l'affaire son directeur Samra l'a supplié et finalement contraint à en endosser la responsabilité devant des messieurs présentés comme des agents de la DIC venus l'accueillir si une décision immédiate n'était pas arrêtée. Christian Sandra de fa ak ay nit ne ko ci millions dem moom mu ne Christian Sambra lu tax mu def loolu parce que dafa am leneen lu mu doon nëbb lu xew lu gën a te Christian Sambra dafa àndoon na koy nit ne ko sommation interpellative baa ngi nii signé ko tout de suite wala ñii ma ànd division des investigations criminelles lañ bokk dig dañ lay jël yóbbu dañ lay jàpp tout suite nee mu tiit. ndax ba mu gisee ñooñu ñu ko présenté comme ay ñu bokk division des investigations criminelles gis nga ñooñu ñu présenté comme des euh, ay nit yoo xam ne division des investigations ay clerc la maanaam si bureau huissier lañ nekk laaj bi mooy lu tax ñu indi ay clerc di leen présenté comme des agents de la DIC lu tax ñu indi ay clerc di leen présenter bu nekkoon rek waa ndaw sàcc seen xal ma xam ne na leen lolu man Pape Alé man sama position la ci clair parti plus bu jappé né Rachel sàcc na ko cent millions yoon la parce que foofu yooyu yag nañ ko gis néna ci lolu le tité mom bañ ko waxé ne ñooñu digg lañ bokk ndekete dara du ci dëkk ñooñu ay clerc de huissier mu xëm mu ne loolu lu koy firndeel lu koy firndéel lu koy firndeel nee na ba mu xamee dañ ko réanimer docteur docteur bi ko réanimé mi ngi tuddu mbay samb damay neub nak cellulaire mbay samb parce que lolou lepp mi ci plainte bi mbay samb voilà néna bam ko réanimé ba paré réanimé ba paré wax na len na len ki mi ngi nekk ci état de détresse physique et psychologique nee ci loolu la jël ay certificats médicaux ginnaaw ba mu demee ci loolu 6 mars 9 mars 11 mars 16 mars dugal ko ci loolu yépp bu clinique Matlen ak bu clinique du Cap bi nga xam ne fa lañ ko hospitalisé woon mais li jaaxal ñëpp fait troublant fait troublant ci dossier un fait troublant xam nga la sommation bi ñu ko jox après la sommation sommation bi ñu ko jox dañ ne ko cent vingt six million nga luubal ci kees gi mais ci cent vingt six millions yooyu dañoo jékk ba si yàgg bind ak loxo point cinq mooy lii point cinq moy li li ngeen di lire ni dañ ko ciy bind la main xam nga signature baa ngi nii soo xolé xam nga bind bi ci kaw wouté nak bind bi ci souf ça c'est écrit à la main ñëpp gis ngeen ko lii mooy li ñu tàppe te li ñu tàppe dañ ne ko cent millions la lay topé mais le fait troublant en deux dañ ne ko en 2019 amna milliard 600 millions pour ay avocat ou Rachel manœuvre le boo xam Christian Samra moom moo ko def ak huissier bu mu qui comme des agents de DIC pour mën justifier et avocat ñooy wax de ñu ne ci avocat lire en France Un fait troublant, après clôture de sa sommation, Lucier, au bas de la dernière page, a rajouté à la main 1,5 faisant état pour l'année 2019 à la découverte d'un manquant qui serait évalué à 1 milliard 600 millions de francs CFA qu'il s'agit clairement d'une manœuvre perpétrée par Christian Sambra et son officier ministériel et qui achève de convaincre de la supercherie qui a été tentée par le directeur Sambra pour justifier les évasions massives de fonds sortis du coffre sur ses ordres, instructions et sous sa responsabilité. ñoo ko bind de ci plainte bi ne li leen jaaxal mooy sommation bi ñoom ñi ngi laaj cent vingt six millions la ndaw si jël waaye ba ndaw si bañ ko foofee ba mu si ba pare dañu bi bind si suuf ne ko ne ko deux mille neuf un six cent réer te bokkut ci liñ koy topp que le coffre qu'elle gérait était contraire à tous les principes et règles d'organisation comptable portant l'harmonisation d'une entreprise. aucune des obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à sa tenue, au contrôle, à la, présentation et à la communication des informations traitées comme l'exigeaient les articles 1, 14 et suivants de l'uniforme uniforme du 22 février 2000 la comptabilité des entreprises mom moy wax de neena respecté wul tu ci lu Tu ci la régularité sincérité transparente ci li nga ne ci article 1 et 14 de acte uniforme ci comptabilité numu ci entreprise mu def en vert

que le coffre que le coffre que le dit coffre englobait la comptabilité générale de Plus qu'il abritait pour masquer et maquiller les comptes de gestion du groupe Mon million qu'est-ce que mon wax Autrement dit, et en conclusion, le coffre était officieux et abritait des mouvements de fonds en marge de toutes les règles de gestion comptable en vigueur dans l'espace ordre. Madame, xaalis Bobo, di dugg ci kees bi nous xam nu vous fay nous kenn xam nu vous fay génnee vous bu mel vous kenn musu vous kees boobu joxe na la loo xam ne lu bare bare bare bare bare ci alal loolu moo ñu ci intéressé ñu est ce que war nañ ci un pays boo xam ne dañ ne dañuy wut xeex pour transparence pour wàllu justice information yu mel nii capital Yo, xam ne gis nañ information parce que dama ne bu nekkoon de confiance xam waral procureur ci réquisitoire bind association de malfaiteurs faux en écriture de commerçants, abus de confiance blanchiment d'argent xam nga dafa am lu mu ay avocat dénoncé ko chambre d'accusation ngi li d'accusation avocat dénoncé dénoncé d'abord dénoncé millions ba rajouter à la main 5, milliard 600 millions il y a une violation manifeste de l'article 822 et 45 du décret 2015 sur le statut des huissiers. dafa am loo xam ne dafa am solo xam nga coow li ñuy dégg ñuy wax ne mooy lii xaalis bi ñuy dégg ñuy dégg ne ñi di wax ne milliard là, du milliard ak yooyu mooy euh, Rachel ba mu xamee ne dañ koy tël ren bi dafa daf leen jox lii mooy lii ma leen lii mooy ay décharge ay décharge yoo xam ne ay nit ñoo ko doon déchargé xaalis quarante millions euh, David Derti euh, musa Fall trente cinq millions cinquante millions Babacar Diouf Salam Ba trente millions trente cinq millions Babacar euh, kii Moussa Fall trente millions trente cinq millions abdou salam ba signature mooy yi ngay gis ni ngay ni gis ni te xam nga lu indi li ñii di courtier yi doon jël xaalis ba ba njëkkee dem dañoo miim na amul mais xamuñu woon na ndaw si mu ngi denc lii ci procédure d'enquête bi Rachel je mu li vais wax ba pare dafa qu'elle a déposé à l'appui de sa plainte un bordereau de 68 reçus 68 reçus totalisant plusieurs milliards témoignant des sorties de fonds de son coffre sur instruction de son directeur général Christian Samra. 68 reçus, totalisant plusieurs milliards, témoignant des sortes de fonds de son coffre sur instruction de son directeur général Christian Samra. L'audition des porteurs de fonds a permis de traquer les 10 fonds dont une partie a été retrouvée au lieu indiqué par les coursiers. Parce que si vous les coursiers, vous avez dit que vous

lu ñom bañuy japp ndaw Mucho gendarmerie def liggéey bu mucc ayib liggéeyam procureur def réquisitoire viser ay délai am de confiance am faux usage de faux defena association de malfaiteurs am blanchiment d'argent le lieu nekk ci mbir avocat yi ne leen ñun bu ñuy indi suñu Rachel di leen ko jébbal moo ne leen nee nañ Christian Samra DG Bati Plus ndax Rachel indi na ay preuve yu leer ci décharge yi ba coursier yi nga xam ne ñoo doon jël ci xaalis bi ñoom d'accord nañ ci ne ñoom jël nañ xaalis bi yóbbu nañ xaalis bi ci diw ak diw gendarmerie def seen liggéey yóbbu ñoom it dem def li nga jàpp ci xaalis boobu indi def seeni mbir joxe procureur moom it def réquisitoire laaj lu tax rek ñu indi ndaw si moom kese cundum ci kanam bi ñu toog ñeenti weer coow lu mel ni tulleeg màlle fii ci réewum Sénégal ñépp di wax réseaux sociaux yi di Casa del Fares commencé coow li tàmbali ñu doog a woo Christian Sambra kon ñun ñëpp doon ci wax te ñun mën ci wax wax naa leen bu Rachel yorelee xaalis Batiplus na ko fay xaalisam waaye Batiplus timit bu nekkee ne dafa yorel nguuru Sénégal wareef la ci kuréel yi nga xam ne ñooy toppatoo alalu réew mi lu ci mel ni direction générale des impôts wax naa leen fii ni délit yi ci am te inspecteur des impôts listeel ma ko wax ma ko lu ci gën a doy waar mooy Batiplus dafa bëri ay exonération loolu dinaa ci dellusiwaat parce que am na lu ñu may wax lu ñu jar a fii la am na wala am parce que nous avons yenn exonération yi une ay fausse exonération Nous am na wala amul den ko xol saytu ko laaj ñi ñu wara jox leen yi ñu parce que yor classeur ay exonération kon day parce que dama bëgg rek ngeen wax si vous êtes d'accord la famille encore une fois de plus est-ce que mën nañ ñëw dégg naa ñu ne bati plus soo ko waxee ñu ne ay ay liggéeyu état bi la ok waaw mais est-ce que war nañu maanaam exonération yoo xam ne day bari lool xam nga tuddul nag naa leen fii ciment du Sahel ay mbir yu doy waar yu am dossier boobu maa ngi ciy liggéey pareegu ma parce que dafa am ay avenant yu jiggi dayo yu ci am on a rien contre les Fares rien du tout mais xam nga lañ bëgg ni ñuy noté doomu sénégalais yoo xam ne yaruñu dara fara dafa xaalis ñoom seen famille bi am na xaalis ba xam ñu sax nu mu toll xamuñu sax nu mu toll ci xaalis buñ mënee noot ay doomu Sénégal di leen def ay redressement saa su ne guddeeg bëtti te duñu am exonération est-ce que jaadu na société nekk fii ci réew bi di am exonération guddi ak bëccëg exonération yi mel ni cartable gol garab boo dem fekk ko ci biir entreprise bi nga wëlbatiku am kees boo xam ne mi ngi sa biir société ki yor ki yoroon kees bi moom ci boppam ki yoroon kees bi moom ci boppam wax ki yoroon kees bi ci boppam wax Ce coffre était contraire à tous les principes et règles d'organisation comptable prescrites par l'acte uniforme portant harmonisation des comptabilités des entreprises. Que la gestion des mouvements de ce coffre ne respectait aucune des obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à sa tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations traitées comme l'exigeaient les articles 1, 14 et suivants de l'acte uniforme du 22 février 2000 relative à la comptabilité des entreprises. Que le dit coffre englobait la comptabilité générale de plus qu'il abritait pour masquer et maquer les comptes de gestion du groupe. On a fait que reprendre ce que Kinga Kane, Moran, Jerek Kespi, Lumniwa, loolu la xam ne moom moo ñu ko xam moom moo ñu ko xamal ne lima ma yoroon kenn mënu ko tuddee lenn lu dul njombe njombe la que ñun suñu toll fii di masataa di ñaan xaalis réew mu normal dina am lu mel nii ñu gis lu mel nii te Fraize boo leen redressé laaj leen trent milliards sax galax ndiku la ci ñoom du dara ci ñoom mën nañ la ko jox suba est-ce que jaadu na ñun ñu xam ko ne dañ koy noppi bu Senegal ne Sénégal moo la ñor bu nekkee Sénégal moo la ñor parce que alalu Sénégal la keneen moomu alalu Sénégal la comme alalu Sénégal la nag ah ah ah ah gaay wax ji day leer il faut nag ñu waxante dëgg boo koy def man comprendre naa sax di ko def di ko def di ko def mais nag boo demee doy en certain niveau régulariser wala xaalis dafa am feneen fu mu doon dem xam nga ñi ciy tudd lu baree bari man du ma dugg ci détails yooyu waxoon naa leen ko ci njëlbeen bi na leen man ay FBI ak FBI bu ñëwee ministre de l'intérieur war na cee xam dara FBI yi xam nga FBI bu bu naree def ba mbir mu du nëbbut nee naa leen fii général bi nga xam ne da daan def trafic de drogue fii Guinée Bissau dañoo dem ba digg mer piège ko mu ñëw ñu ne ko nii jàpp yóbbu mu ngi purgé peine fi mu nekk nii États-Unis Noriega yéen a koy fàttaliku di Nicaragua dañ ne cëpp comme mënoon toon li jiit na wàllu drogue ne ko cafeet dugal sa kon jàpp naa ne man loolu du ma dugg ci détail mais xamama lan moom intéressé de ñu xool lii yëpp di génn ñu viser est-ce que jaadu na rek ma laaj leen délit blanchiment d'argent ñu viser ko am na ñu ne bon juge bi ne ko pas mo place sous contrôle judiciaire soit mais ko meuna place sous contrôle judiciaire te muy auteur principal ci blanchiment d'argent. kana xanaa bom 24 24 ans feebar nga koy un abus de confiance ak euh, association de malfaiteurs parce que y a peut être yoy lañ koy topé abus de confiance kana kooku daan teg la feebar tëdd ñu woote jël ci ko par la force xam nga damay wax rek te yàlla tax man xam nga man ci kenn boo bàyyi ki nga xam ne ñu ngi koy toppee délit ñoom ñëpp présomption laa wax délit de blanchiment d'argent ci loolu lañ koy toppee ko neexee rek bu layoo ko ba génn ci moo xam ki nga xam ne da koy toppee Abdou Kafa wala dafa leneen lu ci laxasu te leneen yooyu nag ñoom waa Fares moom la ñuy wër moom lay wër moom laay wër ñoom moom la wër te foofu la bomb yi nekk ñoom xam nañ lan la man xam naa lan la kon gars yi Yam, bon euh, peut-être que il nekk extérieur buñ ou bëggee wala Sénégal je sais pas ma wax rek que peuvent appeler hein nekk ne je sais même pas parce que tey amutoon sax appel normalement mais bon je vais mettre euh, le numéro de Dakar euh, voilà ça c'est le numéro de Dakar et puis l'autre numéro c'est un appel normalement mais nous ubbi tuuti pour jeexal en beauté li nga xamné que nous sunu Casa del Ferez épisode 2, yeneen yi nag bon koy gëstu naa ci dellu koy gëstu exonération yeeg yu ne loolu yëpp dañ dellu si waat beneen yoon xam naa dinaa leen piège duñ xam fan laay defee laay moo tax gis naa réseau bi ñu koy yëngal mais bàyyi leen yooyu parce que dañ ko def live ñu enrichi ko après gars yi dañ ko seetaat xam lépp yéen a ngi dégg léegi jibi bay jibi bay mu ngi woote ba Suède di wax kaawu frère am Amadou Makhtar Bey commerciales, commerciale bâtiment mu même pour les cas similaires. je ne sais pas trop mais moom nous ko wax ñu wax ne dañ ko ko malversation détournement ñu nous, dafa nous te famille nañ famille ko gëmuñu xaru bi parce que nekkutoon parce que booy dund ak nit di nga xam jikkoom parce que am na ñoo xam ne mën nga leen teg tuuma mais dañuy wax ne on va se battre ba tuuma bi dañ loolu la ñuy wax on va se battre ba tuuma bi dañ battre nag ba tuuma bi dañ mooy lan taxaw am fulla am fayda génn tuuma Quand gars, euh, il a Yama, parce que ce jour-là n'est pas un jour de. J'espère qu'il nous reste à peine 4 minutes ou 3 pour terminer. L'essentiel, beaucoup de nous. Donc, il y a des gens qui ont 7 Parce que, d'abord, tout Rachel, a une menace de mort. Je vais vous di wax na lu ci xew leneen moo di dañ topp mbir mi ba xam fa lay mujjee di ko xool ndànk na sans aucune prétention parce que amul benn leçon bu ñu joxe mais nag day jaadu rek lépp ñu koy bëgg mu tegu ci yoon ànd ak yiw loolu dañ koy bëgg kon la famille maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax lii lañ indi woon tey jii pour leeral am na ñu ngi ma doon wax ne réseau bi mais nag boo leen pare xam nga noonu la ñu def da ngeen koy seetaan en replay ba pare partagé ku seetaan partagé ku seetaan partagé ku seetaan partagé ku seetaan partagé boo pare léegi dina nekk ci chaîne YouTube bi ku pare partagé partagé partagé partagé pour deug bi meuna a deug dëgg qu'éclate la vérité voilà ce que nous cherchons amuñu beneen objectif dans ce dossier dañ cay wax nak lepp nak dañuy xol rek ba xam fan lay mujjé kon gaay ma ngi leen di jaajëfal leen dig dajé inshallah ci yeneen yu ñu war a sant di leen gërëm bu baax a baax Sénégal Thank you. buscarle en su lugar un alimento de Se le en su lugar I let am